حق حقائق الزبير وعقزه المجنين الليل وبزعيم عن حوف وجه من كل ما آلافه عن فتن وبأبي حبيبة لقمان فيه إلا جناح وكرم ما يقول بحق

علي البشرى والتكريمة بجاي خاتمة أمت نفسي عن كل ما يجرني لحقي وبرقية وزينب حتى أكرد والحجاب كل زمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنة لأوشي لحامل الوارم يا أخي تقبل كلمي رب ربيه وبجاه الأسود حب الاستقامة وقلب الأولي بحامل النعام بالرحمن وبأبي ما أسلمت الخولان مخيب الكفران والسعادة والقوم والحمل والعبادة بلا سيد تجري عبي الورى والانسلاخ الورايا والجبال وبأبي هريرة وبكلا وبسحيل ربي بن وتعتق الوسيله سرا وجهرا بأبي لولاي وحرمة المقداد ثم قال بزبيه أو بالمقاصد وبأمير المؤمنين حمرا حمي مرة حمرا بحق حائل المجاهدين الذي أعاد بنا بحق السقف وبحق الغرام جدني تمسكا بنصحى غرام بحرمة القاسم ثم قاعدة جدني قديم منتبى المناقب وبأبي بكر وعبد الله جدني فضلا المال وبنات كيف نعين وقد غيره قل يا معين دومنا خديجة بالأمل بالعلم والآداب ربي مني وما بلغ وجهني وسر بمالك وسابقي وابي حنيفة وأحمد المشتجب مجاهدني لست السؤال وبلغني مبلغ الرجال بجاه ميكائيل أقلي يا يجعلن حريص كرما جاهد صلاة الحبيب وكفني أمان يوم الغرما بجا يا صلاتي نقول يا جميل كل حياتي أساك طرفي واجعل توسلي لمن يدعوني سعادة الدار المحل بي وليجد التي جملة الأسماء والعلماء وبالنجاة من سؤال وعسى وسكرات الموت نفي والعسى وبالبشارة وبالسرور عند مماتنا وفي المشار وصليا وسلما على النبي وآله وأصحاب الجميل واغفر لوالدي والدي الجميل فهم جملة الشعب يا سمين مسلم وقد بي حاجة كل مسلم وصلي على سبي وسلم واقض بي حاجة كل وصلي على النبي وسلم وقد بي حاجة كل مسلم وصلي على النبي وسلم وقض بي عادة كل مسلم وصلي اللهم في وسلمي وقض بي كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقض بي كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقض بي كل مسلم وصليا على النبي وسلم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 محبت رب العالمين مع الأمين والأمين والخادس والأمين لكلكلي وجاسي عبد رب العالمين ما لم ني ولم والنبي ولم لكلكلي وجسدي نجيت سرنا سراسيا بلو بما درنا زي ولي كان بالنسبه وسنني أنوسني نابت عيد اللعاب قلبي يرى بالمنتقال ولم يقلني الحال في سفري وبلدي إلي قاد به سفرا خلي وغير بالمصطفى ملغني الأم المخر بجنبي في خالدي لم يلني مبارس وفيت ببارس إبليس لا يبارس جلد الأسلام لم يلني من يختار هم اللي اللقاء بملا وليخوض في الخرام ربي ما لم يعلم الله كان لي بما يغيث الله سادما هذا الولي الوليخوت مما خاد الوخير ركبي هدية الله المياني ساق لخير الله ويوم بالله من ساوى في خد مدى الله البشر بجاي سيد البشر ولي يمنى نصار لم اخما لم يفدي على من الله العليم مما يزا ومن الله وزا وزابق الكلام منصرفا بسفري ناديت ربي الكرم بكل ليس تريم انوارها ولي الرب احمد خير سفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الامين في الملاي مقبلا الرحمن والجسد الله رب العالمين xëñ na jamono dafa toll foo xamante ne nii chaque jour ni da ñaan yàlla di toll ci benn niveau bi di gën a avancé kon dañ leen di ñaanal tey fi akasa toll yàlla na ngeen toll fu ko raw ci barke Serigne Touba ndax askan bi ngay gis yëpp tey ñu si ëpp akasa la ñuy xaar kon dañuy ñaan yàlla yéen ñi tey jii nii yàlla na ngeen romb fi akasa nekk ba jotaay bu am ñu ne nañ leen toog xaar seen góor wala nangam wala nangam bu ngeen gisee nag kàddu yi ñu jël ko ñu lott nan ci ay kilifa toog ñu jël ay kàddu di ko teg waaye nag dafa nekk ni nit boo ngeen di ànd di liggéey yàlla niñ tin sedd na ni tabaski bi téeméeri nag xar ak juróom fukk la yëkkati jox ma ko xaalisam maa dem jëndi ko daral man maa koy sedd rek sama loxo ba mu jeex tàkk musuma taxaw mu ne ma defal ma facture amut safar gii ñaar fukki nag ak gëléem man maa delloo ñetti gëléem ma nga pulaayee ma yow musul taxaw ma dem jëndi ñëw mu ne ma defal ma facture amut dafay ñëw mu décroché xaalis bu bari jox ma ni ma njaw ma ne ko waaw mu ne ma lii lan war a def ci jotaay ak lii man ko nun koy doxalee mu ne ma xoolal noo ko defee baax na romb ma dem des fois su day dem ba ndakaar sax ni man njaw man ko mu ne ma demal hôpital am na ku ma woo nee na kat dafa am malaat sàngam boo demee laajteel diw bu ma demee bu ma ko laajtee bu ma demee ba xam état am su ma ko waxee ne ko kii kat tubu ci état bi la toll danaan ma jubali ca pharmacie ba bàyyi fa nàngam ngir moom waaye buñ ko nag ci bolo ko jox kon loolu nit moo ko man alal dafa sax ci xol boole ko nga yëkkati sa alal di ko jox ay nit boole ko ak ree xam nga loolu yombul xam nga tey jii nit mën nay jox nit di ree nga yaakaar ni kii li muy ree du dëgg ci moom fekk lam lay jox ci xolam na ko tibbee tubu amul ku muy nëbal te boo ko xoolee doo muum amul képp koo xamante ne nii joxoon tegoo ngeen loxo saa bu ko teggee moom nee na moom rus na di yëkkati ñaar téeméer di ko jox nit muy yóbbu këram dépense mu yem ca képp dootul amat dara lu mu naan ataaya su demee bay jox ni da koy jox loo xam ne dina ci mën a añ reer ci ndékk ci naan ci ataaya kon nag kooku dañ koy sant danoo bëgg képp ku doog ci jotaay bi nga toog fi nga wax ci bu yàlla na fi yàgg te wér parce que nag sunu sag la ndax sag bu murit la tey jii li mu def ci dëkk bi fii yaakaar naa ne ñu doon sol sunu dàll ba Touba gële tey dina jafe nga gis tey ku tëral fukki nag ak ñaar fukki nag ak juróom ak ñaari gëléem di ko togg di ko berne di ko joxe amul boisson amul kafe amul dara loo xamante ne ni manqué dañoo joxe ba nga xamante ne nii li nga xamante ne nii moom ay café Touba tàngal lépp dañ koo joxe te nee na ma njaw man ko am mu ne ma déwén mooy daax buñ ci yàlla yóbboo lu nu def ren ci kattanu yàlla yàlla mu yàlla kattanal baat bii la ma wax dinaa def lu ko raw kon dañ koy ñaanal yàlla mu am gudd fan ak wér ci barke Serigne Touba di ñaanal nag xale yi mu àndal parce que yor doomi jàmbur dafa metti te xale yi mu yor yëpp kenn mus cee onk kenn mus cee jooy ku ci siguru sax ci bu tàggoon ak sa boom balaa am jàmm dalaa faj kon kooku moom yaakaar naa ne ñëpp la fii ñi ngi siyaar nag ñilaan euh, ak jëtu jéen parce que mënunoo wax ba daaneel te wax nu si ñoom ba ci seen mag kodd ndax ñoom danoo nekk ànd ak Ndeye Thiam du nu ko jay di ànd ak moom ci liggéey bi di jéeg ak moom di wàcc ak moom foo gis Ndeye Thiam gis nga ñoom kon ñoom it dañ leen di ñaanal yàlla suñu borom kàttanal leen ba li nga xamante ne nii moom lañ bëgg ci tuub suñu borom yeggali leen ñun nag xëy na danoo mënewul wax waaye bëggoon na noo wax lu ëpp lii ci tuub ndax li mu defal moo ko ëpp suñu fekkente ni nag kàddu yi da leen a fekk ci yeneen dimension yoo xamante ne nii daf leen a fekk ci ak xol ñëpp ñëpp xol ñi ngi ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom teggi ba mu doon li mbég ay mbégte yu mbégte ci yéen safaru ren jii nag ñi ngi ñaan yàlla képp ku ko fekke yàlla na nga tàggoog bàkkaar ci barke Serigne saali képp ku ko fekke yàlla na nga tàggoog bàkkaar ci barke Serigne Saliou noo ngi ziar ñëpp ñoo ngi baal waax ñëpp encore une fois di wax ni nag jigéen ju baax day nangul borom këram tey jii nii kii tàmbalee ci beñe ba borom këram fekk si ko ci bésam bii àddina yëpp toog jigéen la te ndaw la kon tey jii moom am na référence bu ko neexee tey mu siggi xam nga lu tax mooy dafa ñëw mu ne damay liggéeyal Sëñ Bamba yëkkati kopparam bi ci départ borom këram di ko seenaan ba xam fu muy mujjee ñu dema dema dem ba borom këram tibb ci xéwali boppam jox ko ne ko kaanu koy bokk kon day ci am mention spéciale ñu ngi ziar jëwriñ di ziar bàjjanam bu baax di ñaanal di ñaanal nag yaay nday ci am ci boppam fa mu jëm gënal ko fi mu jógee yàlla na ko suuf sedde bu baax a baax a baax doomam fii ci jamono ndax tey lii yombul xasida sëñ ko benn baatu laa ilaha illallah rek xali ci nit kon dañuy ñaan yàlla baatu laa ilaha illallah bul fi jàng rek yàlla na doon njariñ ci Cuubu Géey doon njariñ ci ak njabootam doon njariñ ci ñun ñi ànd ak moom maa ngi ziar ñëpp di ziar pandooy bu baax ndax wayjur ci Cuubu la dafa bokk ci Cuubu kon dañ koy ziar ziar Juuf Pa di leen baalu ñun ñu mel ni borom bi muy bind xasaayit gi dafa amoon ku ko toogal yoral ko wantaay di ko ëpp ñun ñu mel ni bi sëñ Touba di bind xasaayit yi dañ koo tegaloon suukar wala lem muy naan bu ñuy waxtaan sax ku ne mën ngaa wax waaye xasida yi sëñ Touba yi moom buñ koy jàng ñépp a war a noppi ndax ko xam ci xasida yi ngay bind diko tag tagg yonent bi ci la yàlla ñeuk retane na yonent bi sa waajaa ngi bëgg bindati xasida yoy fuñ koy jànge ku dis gor woro wax adhaka rabbi rabbiya rasulallaahi bi khatti al mughzi adu aduwallaahi kon man day amna naa gàcce lool am luma nakari naqari lool loo xam ne su itam lumay netti nettali ci télévision bi la lu may waxtaane la ci ma ak teggin yi mbokki taaliba yi war a am ci bu ñuy yëkkati xasida yi sëñ Tuubaa yi man ñaawlu naa lool dem ci ab baas ñuy waxtaane sëñ Tuubaa gis fa jigéen ju teg gerefaas te muuruwul ku ko def xamal ne def nga loo xam ne nii bokkul ak bëgg-bëggu sëñ Tuubaa man ñaawlu naa lool ñu dem ci baas ñuy waxtaane sëñ Tuubaa ñuy wax jeneen wax ju dul déglu waxtaani sëñ Tuubaa ak déglu xasida yi sëñ bii sant Touré daane léegi ay xasida la doon jàng woyul woon taggul woon maami kenn sëñ Cheikh Ngunda Male xasida la doon jàng kon buñ nekkee ci baas bu ñuy wute aw yiw di fa déglu sëñ tubaa képp kuy wax ak loo mën a wax loola xaraam na ndax sëñ Touba la yàlla teg ndimbalul jaam ñi yàqoo ci jataayub sëñ Touba nag defaroo fa da koo gën te gis ngeen xasida yii fu ñu koy jànge sëñ tubaa nee na aras ak kursi yu dafay yëngu waa xam ngeen lan mooy aras ak kursi yu ida katabtu tadda arsul baaxi aras juróom-ñaari pied ñoo ko téye pied yooyu benn tànk bu ci nekk dem na juróom-ñaari suuf sar juróom-ñaari asamaan moom lañu sëñ Touba doon jàngal ci fadat waya ilu wadat fa yaa ilu waat fa yaa ilu ba ca wasas ma yaa ilu ba wasan ja ilu waaw loolu bu fekkee buñ koy wax loola di yëngu di jaayu est-ce que kon buñ koy nettali di ko wax ni ko sëñ Tuubaa bindee wax dana dagan waajal ak màggal sunug defaru moo tax mu wàcc ci kaw suuf du ñun sunug baax du sunug judd du sunu melokaan wa lutax mag ñi andon ak seigne touba bu seigne touba di def ay tombu sax weñ du na weñ nun dabaguñ mag ñi jaaraguñ sax ci yoon wa kum neex na nga yëkëti sa loxo ne man murit sadikh la man damay tit sax bu ñuy wax diwa nga ñew murit sadikh la te ñun ba légui bu ñuy kasi seigne touba yi mënu ñu tewlu boo bo mëna dem ci adina ak lu ba bax bax bax ñuy yëkëti xassida jigen ñew def bopum neen def gerefaas tol haram na xaraam na ci lislaam xaraam na ci sëñ tubaa mi ko tere ndax lépp lu mën a am ci àddina fexe ba dabu bëgg bëgg sëñ Tuubaa ko gën te bëgg bëgg sëñ tubaa weesuwul bëgg-bëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax sëñ tubaa fii la tegoon jàng waaw yéen xanaa gisu leen bërki démb coow lu am ci biir yoonu murit jëm ci benn jigéen gu bëgg a taxawal ab tariixa wala mu taxawal dooleem lu ci sëñ Muntaxa wax xanaa ñun dañoo bëgg a bokk ci ñi nga xam ne nii bu yowmal xiyaamee ñooy ñi sëñ Tuubaa di yëlbu te sëñ Tuubaa moo wax ne am na ñoo xam ne danaa leen yëlbu am na ñoo xam ne danaa leen sëlbu am na ñoo xam ne danaa leen yóbbu nan góorgóorlu ba bokk ci ñi sëñ Tuubaa di yóbbu sëriñ Saaliw Mbàkke nee na xanaa xamu leen ne yàlla xarala na xarala goo xam ne yowmal xiyaam mën naa jël sëñ tubaay yóbbu ko ci pays yi gën a sori di ko teral jël sunu jëmm yi di ci jëfandikoo lu ko soob daal ne xanaa xamu leen ne ki ñu àndal lu yàlla def neex na ko koo xam ne nag lu yàlla def neex na ko da koy moytu kon nañu góor góorgóorlu bu ñu ñëwati ci jotaay yu mel nii nañu déglu xasida yi déglu waxtaani sëriñ bi ndax luñ fi mën a jëlee looloo ko gën ndax mbokkum taalibe dafay laaye biir mbokkum taalibeem te lam koy laaye biir weesuwul li ñu bokk te mënuñu ko séddoo te muy sëriñ bi sëñ bay jaxate nag dani ku toppewul kenn du la topp ku naxewul kenn du la nax lu ñu jiwul du mën a sax waaye ku farluwul sa lépp ne waaye ma bëggoon tuuti déglu bala may waxtaan xam naa barkeelu rek lay doon li tax déglu baax tam dinaa ko wax ci bis yu mel nii ak jataay yu melni di ci deglu lu am solo dafa am ci jamono yi Bakar abubakar saddiq abubakar dafa am julit bu genn aduna Seyuduna sayyiduna abubakar moko don doon jullee ñu teural neew bi laxas ko juroom ñaari mètre perkal Seyuduna abubakar taxaw ci kanam julit yépp def sàppe muy jullee néew boobu bi mu koy jullee ba mu yàgg fi féeteeg bopp néew bi ñu gis muy yëngatu ci biir perkaal jullit yépp tiit jaxasoo jàpp ni néew bi dafa dekki naa abu bakar ni nañ dog càngaay li ma dagg julli gi ñu xool lan moo ciy yëngu bi ñu dogee càngaay li dagg ko ndeke jaanu njàngoor moo laxasu ci doq néew bi di ko matt jaanu njàngoor jooju moo doon yëngu ci perkal bi Seyduna Abu Bakar laaj benn kaan bant bu mag ngir dóor ko jaan ji bëgg koo faat jaan ji ni ko ci kàllaama luxatul arabiya ni ko bul ma rey yow Abu Bakar Saddiq yàlla mi la jiital ci islaam moo ma yónni ngir ma màtt jaam bii tëdd te duma ko bàyyee màtt ba keroog muy tàbbi safara Seyduna Abu Bakar ni ko loo koy màtte mu ni ko dafa ame woon ñetti jikko yu bon ñetti ñaawteef ba dee fekk ko ci mu ni ko teeg maa wax ñetti ñaawteef yi ma ko julli gi ndax yéenewu ma leen jaan ji di leen màtt ëllëg jaan ji ni ko bi ci njëkk mooy da daan toog zéro mètre kaay leen julli amul benn ngant mu bañ a jug julli ji bi ko ñaareel dafa amoon wërsëg du génne azaka du saraxe ci wërsëgam te saa su jataay amee pookaréew mu mayee ca lu baree baree bari ngir bëgg turam ñu dégg ko defe naa lu yaatu la Sénégal bi ko ñetteel day toog ci jataay boroom xam-xam ñëw ci man cee wax lu jariñ jullit ya fa teew mu nekk fa di def bel bel bel du ko déglu ba kenn du mën a déglu boroom xam-xam ba loolu ku dem ci téere bu ñuy wax duratu naasixiin da danga ko fa fekk ci gëstukat kon ñu moytandiku dugg ci jataay bañ a déglu rawatina nag waxi sëriñ Touba ndax sëriñ bi dafa waxoon kenn ci ñi ko yaakaar yàlla sama boroom am na bis ma laaj yàlla lool nag ci sëñ Touba rek nga koy dégg doo ko dégg ci ku ko ñaare mas naa di wax ak yàlla man Cheikhul Khadim ma laaj ko ni ko wax ma loo gën a bëgg ma digal ko samay taalibe ñu la koy defal nee yalla sama borom ni tek ba su fekkon kuy fatte la damay japp ni fatte na ma waaye yalla du fatte tax ma xamni daf maa tontoogul Cheikhul Khadim nee ma delu lat ko lo geuna beug ma digal ko sama njabot ñu la koy defal Muni ciel mom yalla, bima ko laaje ñettel bi yoon muni ma lima geuna beug man yalla ci jam ñi moy fuñu tollu dila di yow Ahmadu lima geuna beug moy fuñu tok dila waxtane yow Ahmadu saa su ay jam dajee ci bërepp dila waxtané damay jël sama taw xéewal di taw ci seen kaw ba kérok ngi noppi waxtan wa fek nopi wuñu duma arrêté sama taw bobu ci seen kaw kon waxtané sëriñ bi dara melu ni mom day dolli sunu mahabba ci mom sunu ciofel dañuy defal barke day guddal suñu fan ku fi déglu tam téw bo fi juggé say aajo faju ñu jéggal la say béréb booy defaroo nag kenn waru faa yàqoo te sëriñ bi waxoon na ko sëñ Masamba Mbakke dañoo toog di jàng ay xasaayidam am ku ñëw di déey sëriñ Masamba sëriñ bi ni teg ni ko Masamba kooku lu muy wax nee ko na ko tuub mu ni ko tuub na ko Mbakke ñu nit ñu ngi tuubaale mu ni Masamba wax leen ni ku ci moytuwul su ñuy wax sama xasaayid yi mu ci bërëxal ay waxi àddunaam lu mu gaaw gaaw dinañ ko bërëxal safara te duma ci man dara man Ahmad da ngeen ci bàyyi xel bu baax te koy teew lu ànd ak dal te Serigne Touba waxtaane ko moo gën a neex lépp maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine miy bunt yoon wi di bàyyu góor ñi te raw ñépp daf daa wax ni turu sëriñ Touba ci noppu moo dàq lem ci biir gémmiñ doom di leen ko déglu. Mam Cheikh isa jenn borom jenn ak Lagan waxon na ni Serigne Touba dani ko isa mba du ngeen jew muniko duñu ko mukk mbacke sañu ko ndax yaanu yar muniko ko nan ngeen di baña jewé muniko xana fuñu ko xanaa di la yem ci yow serigne bi niko kon de du ngeen jew kon de du ngeen jew kon de du ngeen jew tay ak kon nañu yem ci waxtane serigne bi wer wi nu dugg nak ci la sëriñ bi fàggule indépendance kuy murit weer wii moo nu jural sunu jàmm kuy muri rek ci nga amee liberté indépendance jërëjëf indépendance kenn mayuñu ko kudul sëriñ Touba ñu xam ko ak ñu umpale ko jàmm ji ñu nekke kenn defaluñu ko ku mooy sëriñ Touba aljana ji nu yaakaar ëllëg kenn digguñu ko ku mooy sëriñ Touba te sëriñ bi ci weer wii la ko fàggoo xam nga wax naa bu yàggul ni wax naa ko fu bari ñun ñépp ku ci sa kër di lakk da ngay composé 18 am de ku sa kër doon lakk léegi 1 ak 8 18 ngay composé sa téléphone woo sapeur pompier bu ñu ñëwee lu ñu lay defal fayal la saw sawara safara si ngay bëgg ñu fay ko nga composé 18 ñu ñëw fay safara si boo xoolee weer wi safar la tudd soo bindee safara bind safar ñoo bokk nuñ koy bindee safara safar fukk ak juróom-ñett la Cheikhul Khadim génn ni tëj safara ngir ñi ma yaakaar fukk ak juróom-ñett ngay composé sapeur pompier fay sa safara kon bis bii ci sunu kanam bis melul ni moom ñu xool nag fi mu jaar ba fàggul nu bis bi sëriñ bi biñ koy génne daa wan ginnaaw njabootam ak ni doom neexe ñun ñi kuñ ci woowoon tey ni la sa doom am na problème dootoo xam looy def sëriñ Bamba wan ginnaaw njabootu boppam bi muy dem bàyyi na fi juróom-ñetti doom ñoo xam ne njabootam lanu nit ñi xamuñu histoire waaye sëñ Touba juróom-ñetti doom la fi bàyyi bi muy dem ci géej gi ñi ciy góor ak ñi ciy jigéen juróom-ñett lañu toll mu wan leen ginnaaw ñépp ki ci magoon mu ngi toll ci ay fukki at ak ndàngam wan leen ginnaaw jëm ci géej moom dong kenn jàppalewu bi muy dem wan na ginnaaw ñi ko yaakaar liñ koy bëgg-bëgg kenn wéttaliwu ko ci biir tukki bi déedéet ñépp ci waax bii lañu yem Sëriñ Bàmba rekk lañu mbarke bi muy dem benn senegali yi gungeew ko moom dong ci 37 kilos 500 ya ci ngorom gu reey ga ci diineem ju yaatu ja ci xam-xamam ba ilif jamono ci beugam ga yenantu bi ci fitam bu yaatu wa fi la embarqué mbacke bari Jolof la xeyé bisu fuk fan ak juróom-ñett ci safar waxna na yawma sabti samina asar li al muhtar fi sëhri safar génn na ci fukki fan ak juróom-ñett ci wéru safar bisu gaawu samedi ngir dem lëggéeyal yenant bi alayhi salaatu wasalaam mbàkke baari jolof la seexul xaddim xëyee keroog bi maam cerno demalee sëriñ tuubaa ndar borom bayteeg maqaama bàyyi seex awa ballaak moodu awa ballaak zubeyroog miqdaat ak abbas keroog bi mu ko demalee ndar ci aljuma ji fajaru gaaw bi mu agsee di wax sëriñ tooba li mu fa jële sëriñ bi dañu ko cerno dara matumaa nettali démb bi nga taxawee ci lu mel ni benn détti mbir yaa tubaab bi melentaan bii dox sax maa ngi jàkkaarloog moom Cerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko na ma samay bagage daf si ci yoon wi dootuma fi jëfandikoo dara lislaam bépp man lay déglu Cerno wax ji àgg na foo xam ne wax dootu ko defar jëfa fi des na lislaam bépp toog am jàmm ma dem ñëw su ma ñëwee ñëpp mën a jubile na ñëpp dal toog maa war a dimbali islaam tey kay la neex ku nekk di woote ci wetu Serigne Touba waaye 1895 bàyyi Serigne Saliou rek fasam bi rëpptal 1895 xëye Mbàkke Bari Jolof Seexul Xaddim jël loxoom bu tedd ba teg ci bopp sëñ moo du Al Karim teg loxo ci bopp sëriñ Fallou dénk naa leen yàlla ak rasulullah ak seen baay Cerno ma dem te ñu indil ko fas wu tudd awnullaahi teg ci mbalaanum sooy la ci Serigne Touba teg. mu war daal di jubali jeewal la dajeeg tubaab bi koy jël si deux cent cinquante spahis la ñu yebal ay tiiral délit jox leen armement fu ngeen fekk sëriñ Touba te nanguut a ñëw na ngeen tiire na nekk dóom booba xamuñu ni sëriñ Touba yàlla la àndal mu ngi yor turu ñuy wax yaa waa lii moom la doon wird yow yàlla mi méngoo sama lépp nee na bi ma tollee tund jeewal laa jàkkaarloog seytaane iblis mo ñëw ak jëmmi Netelin netali nako mam Cheikh Ibrahima Fall netali nako seigne Balla jeng Fall Iblis a ñëw ak jëmmi bopam niko ko ku fi mësa a ñëw doyuma xey dama yebal sama ndaw mu daanel ko yow nak dama xam sa kàttan ak sa ciobare ji la yalla defal motax ma ñëw ak sama bop sama digg ak yow kenn doyuma ci man rek seigne touba niko ko sama digg ak yow kenn doyuma ci kudur yalla sama borom foofee nee na ñoom ñaar dañoo jàppante mel ni ñaari mbër yuy bëre xaadimu rasul nee na ma joggi ci kawam daaneel ko ci tund jeewal joggi ci kaw iblis bi ma ko tegee tànk ci doxam dañuy wooy tànk bu mës am lanteeg man yaa ci gën a tuutale tànk waaye yaa ko ci gën a diisle soo ko teggee mag yow ñu tàqali ko xaadim rasul ne ayasa minnillahu inda jeewali iblisa isna daytahu biyawali loolu jeewal la xaadim rasul fa la toroxale iblis not tubaab bi te dara xewagul jàpp leen ba dañ fa far fanaan te tubaab bee leen yónni woon gouverneur mais dañoo fanaan jeewal ba mu fa jógee dibéer la jabali fu ñuy wax kokki kokki googee la jóge dem Louga Louga la embarqué waat ci altine ji le 12 août 1895 ginnaaw bi mu jullee tàkkusaan ci gaaru Louga saxaar gi jël ko mu war a dem Ndar keroog bi muy dem Ndar mu ngi woo ñaari jàmbaaram sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ak sëriñ Baara gay Faati Mbooj ñoom la yenn walis yi nga xam ni ci la defoon ay satalaam yi muy soxla ngir buy jàppoog buy waat bu wàccee ñu téyal ko Cheikhul Khadim ñu embarqué ndoo murit yépp topp sëriñ Touba. ñu ni sëriñ bi tey ñu ngi koy génne ci senegal soppe yépp am lu leen metti noonu yépp commencé socc jàpp ni sëriñ Touba day échoué tubaab mësta génne kenn ci njabootam def ak yow 24 heures te faatu say mbokk jaale la tubaab mësta génne kenn ci biir dëkkam yóbbu la ci exil te del nga del siwaat ki say mbokk ku dul sëriñ Touba moo tax sëriñ Moussa Ka ni ko amul kuy dajeeg nasaraan juróom-ñaari xat yu mat te yàquñu tawxiidam ku dul yow Serigne Touba amoon nañ fi nag woo xam ni janloog ñi tey mbañam boyal nañu nag woowee mu janlook sëriñ Touba amoon nañ fi doj woo xam ni ku ñu jàpp teg ca kaw jinnee doj ja daal lay fob ndegam doo Serigne Touba la yoneen ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bay bu lislaam defoonu tool nga jëwriñ ko waa Touba moom dong mu déparé Louga wuti ji fu ñuy wax Ndar Saint-Louis bi mu duggee ci saxaar gi xam ngeen ni locomotive bi jiitu wagon yi topp ko wagon yooyu dañ koo détaché ngir bëgg ñi doon gunge sëñ Touba des des Louga sëriñ bi dem Ndar yàlla dogal nit a yéeg ci saxaar gi wax ak taalibe yi ni leen sëriñ bi ngeen di gunge dey dem na bu yàgg tubaab bi dafa détaché wagon yi sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi ak sëriñ baaragay Gaye Faati Mbóoj xamatuñu nu ñuy def te ñu ngi yoral Serigne Touba valise yi nan lañu ñu seen valise yi dañ ni daal nañu wane sunu baatin jar na ko ngir sëriñ Touba mi nu dénk lim nu dénk ca la ñu jëfe seen baatin nan lañu def dañoo jëfandikoo ci li leen Serigne Touba abal daal di ñaan ñoo jiitu sëriñ Touba Ndar jërëjëf Cheikh Saad bu jëf sëñ baax yi jërëjëf Mbàkke jërëjëf sëñ Abdul Baaxi jërëjëf Mbàkke jërëjëf Seex Abo Murtada Xaadimu Rasuul jërëjëf dañ nañ jëfandikoo sunu baatin ndax suñ ko deful sëriñ bi bu wàccee ndar dina soxla ay jumtuwaayam yi muy waaje sëriñ Baara Gay Faati Mbooj ak sëñ Mouhamadou Lamine Gay Firdawsi dañoo jël seen ñaari loxo jàppante gëmm seeni gët daal di jiitu sëriñ Tuubaa ndar bi sëriñ bi wàccee ndar ci saxaar gi la leen sekk ñu taxaw di ko tertu mu daal di muuñ ni leen tey de àbb ngeen puutaru buur xam ngeen ni lii moom ci man ngeen ko jële ndar bi mu fa ñëwee ñu yóbbu ko école bu ñuy wax école xaayaar mbeng seexul xaddiim yàgg na ndar 38 jours la sëriñ Touba séjour na ndar waaye ndar saa soo ko déggee sa xel dem ci gaynde giñ ko booleel mu ne wa man takkoon bi rasulillahi nusratuhu إن تلقوه الأسد في آجامها تلني ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تحري ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تجمي ndar googee fa la toroxale gaynde ga teg ko ci suuf mooy raamal Serigne Touba ndar googee fa lañ ko yóbbee le 5 septembre ci bureau gouverneur Serigne Bamba yëkkati islam julli fa ñaari rakkaa yo xam ba tay ñu koy fatali ko ci ndar le 5 septembre mbokk yi tay waxuma Sénégal waye Saint-Louis gi ci Sénégal amna Saint-Louis bu nekk ci Amérique 2015 fayal nañ ma ma def fa conférence ci Serigne Touba ñom dañuy Magal. 5 septembre bi Serigne Touba julli won bureau gouverneur ndax tur wi ñu ak Saint-Louis bi rek dañ koy magal ñom waxuma Sénégal nag Amérique dañ koy magal ñom fofé la sigile islam. motax señ sëñ ibrahima jóob almasali ni ko laqad aqamta bindar hina tajilu biha daa dalal min ahli shakki wal fanadi yow dal ya yekati islam ca ndar yaa toroxal shaytané toroxal kàcc yi ñu lalon toroxal lepp luy ignorance ak rirangé cheikh ahmadou bamba khadim rasoul mu tok ndar fanweeri fan ak juroom ñett 38 jours le serigne touba sax ndar magi ndar dajalo di ñaanal Serigne Touba intervention mag ñi ko doon ñaanal intervention am na ci magi taalibey seex yu baax ko mel ni seex jaaxa siise ku mel ni Serigne Ndiaye Sarr ku mel ni sëñ Ahmadou Ndiaye maa béy ñoom ñëpp a daje di ñaanal Serigne Touba intervention ngir yërëm ko ci tubaab bi Serigne Ahmadou Ndiaye maa béy ñëw ni ko Mbàkke tee ngaa wàññi sa dangar xam nañ ñi ci dëgg nga nekk waaye nag tubaab bii faw nga maslaa ak moom lislaam may na la nga bind rek wane ni yow bokkook ñoom yitte yàqaloo leen dara wàññi sa dangar ngir nu ñaanal la njekk ci tubaab bi mu bàyyi la nga dellu ci say mbokk sëriñ Touba ni ko seen yéene rafet na waaye nag li ngeen xamul mooy tubaab bi jàpp ma man mii maa jàpp tubaab bi tubaab bi jàpp ma man maa jàpp tubaab bi tubaab bi jàpp ma man mii maa jàpp tubaab bi wallaahi soxna Isa Mbàkke mbacke Balla mu seigne Modou Faati xëri mu seigne massam muni tubab bi jappuma man ma jàpp tubab bi te leg ngeen xam ci dara bobu mu ngi talif khasid ak asiru ma al abrar hina asiru wa zanna al ida anni hunaka asir mu jël xasida gi jox ko seigne Ahmadou ndjay ma béy ni ko dama lay jël séré yow mag nga borom xam-xam nga borom diine nga ndar gépp la jiital fonk la yow laay jël témoin tubaab bi jàpp ma maa jàpp tubaab bi maa ngi dem ci géej gi dimbali islaam dinaa dellusiwaat Sénégal ci jàmm fekkaat la ndar ngay dund doo wopp doo faatu ba ma ñëwaat loolu mësut a mag mu toll foofu sëriñ bi ni ko dinaa dem géej ba dellusiwaat senegaal fekkaat la fi doo wopp doo faatu nga seerewaat mi xam ni maa jox ndam islaam daal koy dénk xasiid ak asiiru dem moo tax keroog bi sëriñ Touba ñibbi si waatee sëñ Ahmadou Ndiaye maa bee ak gore daa defar ñaari béy wooy ko sëriñ Touba taalibe seex de waaye daa nangu li yàlla dogal dani inni la inni la aw daaw xillan maa ujaalisuhu xattu illa wa an qalbi bihil kasal inni nii la aw daaw nat ban aaliman wari an man in adatta siyuuqal jiili fal awalu sëñ Ahmadou Ndiaye maa bee nee na maa ngi tàggoonte di dénkanteeg jëmm joo xam ni sama xarit la xillan koo xam ni maa ujaalisu musuma toog ak moom illaa wa zax lu dul dàq na an qalbi ci sama xol bihi ci daraja yenant bi alkasalu li ñuy wax tàyyeel nee na inni man sëñ Ahmadou Ndiaye maa béy la aw daaw maa ngi tàggoonteeg jëmm joo xam ne Cheikhul Khadim di dénkanteeg moom nat ban sang la aaliman boroom xam-xam la wari an ku sàmm la man sëriñ la boo xam ni in adatta sooy lim siyooxal jiili sëriñu jamono fal awalu sëriñ Touba c'est le premier taalibe Cheikh bii di nee na sëriñ Touba c'est le premier keroog loolu la wax sëriñ Mouhamad Teranga jërëjëf Guèye keroog loolu la wax maa ngi tàggoog sang boo xam ni booy lim sëriñi jamono seppil sëriñ Touba teg fële amul moroom c'est le premier te ki ko waxtaani bi seex Cheikhul Khadim sa journée jours ndar ñu jëlee ko ndar mu ñëw dakaar Dakar Cheikhul Khadim a ngi fi ñëw bisu alxamis jeudi 19 septembre 1895 keroog bi muy ñëw ñu dugal ko ci saxaar gi. cheikhul xaddim dafa taxaw toogul ak fitna ju metti jooju mu ngi ñëwaalee koor goo xam ni da koo koor ci kooru jaamu yàlla du farata moom la ñëwaaleel fii ci Dakar bi mu ñëwee kan jal jóob lañ ko yóbbu néeg bi ñu yóbboon Serigne Touba ngi fii dakaar jii la sonne woon waaye cëy tey Dakar Dakar jii la sonne woon waaye tey jii cëy Dakar tey dakaar gépp a ngi riir ngir Serigne Touba tey day Masaalikul Jinaan jumaa ju mag jooju mu ngi ci biir xolu dakaar au centre de Dakar Masaalikul Jinaan fii la sonne sonne woon néeg biñ ko dugaloon koor la fi ñëwee bisu alxamis Seexul Xadiim nee na bi ma ñëwee fiñ ma dugal koo yéene jàmm doo ko dugal foofu nee na tànkam bi njëkk ci néeg bi benn ràbb moo ko gatanu daal koy jàmm Seexul Xadiim nee na xam ngeen daa ci jaayante bi amul dellu ginnaaw amul arrière ñaari jëmm ko fekk ci néeg boobu muy sunu maam maam Mariama Bousso ak sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa moo tax Cheikhul Khadim alxamis jooju mu ñëw ci timis sëñ Moussa Ka di ko bind naan fii laylatil jumati lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noon ya naan ko làmbal mu làmb daj ay gobar ak ay rabbu ñu tëj ko foofa dem mu des faak rabbu mu daal di jublu xibla daal di kàbbar nee na keroog mënta sujjóot ngir tartar jàng na fa baqara ak ali imran jibril tijji néeg ba lil quraan am na fa yaari guddi lekkul naanul lu dul ca leeri yàlla kooka naanul nee na keroog gis na rasulullahi mu dee ko loolu deesu ko xam billaahi nee na keroog gis na sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara ku weddi lii laajal sëriñ Mor Penda moo fekke woon waxtaan wa keroog mook Bamba njool màkka nan ko xalamal sahaaba bu tudd Hamzatu li xitaaba keroog nee mikaa'ilu jibriilu asrafiilu azrailu ñëw nañ fa ngir bëggal alak nasaraani ci xeetu alkaani ma an niiraani loo taxoon Seex Bàmba naan ca way wa afawtu anhum loolu doy na xarwa iza zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa subuta taarat ila al jihaadi bil armaahi nafsi walakin dabba an il maahi fii la Serigne Touba daje lool waaye tey Dakar gépp nangul nañu Serigne Touba li gën a yéeme tey ci Masaalikul Jinaan da ngay xool ni mu bindoo fenêtre yi vingt 28 yi fenêtre yi mooy numéro 28 bi nga xam ni moom la ñu denc Touba boo ko muy vingt 28 bi ci gën a gudd toll ci 75 mètres tey boo xoolee 75 mètres soror boobu mooy 75 ans yi Serigne Touba dund boo xoolee largeur bi 63 mètres mooy 63 ans yi Rasoul lay dund mu am ko ci biir xolu Dakar te kenn mënu ci dara noonu yëpp gëmmu seeni bët ku bañatee xool li yàlla jagleel sëñ Touba bul xool silmaxaal waaye tey dakaar gépp nag nañu sëriñ Touba il lu l'unique amul morom te kat dinañ dem ba jëmmi jamono waxatuma senegal waaye adduna bépp ay maase di wàcc fii senegal senegal moom dina mujj fees dell loolu ku am xalaat tey jàngat di ko xam ndax Touba aju bu ñu xoolee màggali ay 1950 ak i 60. ak léegi fi màggal toll ci ay million dem katu màkka yaa ngi may dégg màkka bu ñu baree ba bari du ñu dépassé 3 millions quota dañ koy yemale waxuma nag fii aj màkkaa fi am déedéet yooyu dafa mat di leeral aj màkka màkka lañ koy defe faratala ci ku ko mën benn yoon la sëriñ Tuubaa am kaay leen santale ma yàlla la waaye ci turu yenant bi mu jaar ba tey bërëb ba yenant bi tëdd ña fay bu ko boolee ñëw du ñu dépassé 3 millions fi Cheikhul Khadim di wootee sant yàllaam di am cinq millions loolu kawteef loolu kawteef ren ren bërëb yëpp a tëj xam ngeen ni ren bërëb yëpp a tëj ren ñëpp tiit ren ñëpp a découragé xam ngeen ni kuñ ni fii la yàlla nekk war nga koo gëm de lu dul woon mbirum Serigne Touba kenn du ko woote. lu dul woon mbirum Serigne Touba lu mu rëy rëy gars yi jéem a xool nuñ ko évacuer mu dem ndax fi corona bi toll waaye Serigne Touba dañ koo gëm ñun sans condition dañ koo jox sunu bopp sëriñ Mbacke juuf dañu ko woon yaa nu gënal sunu nday yaa nu gënal sunu baay yaa nu gënal ku nu mas a xam yaa nu gënal ku nu mas a am sëñ Touba muñ ni ko woy wi rafet na waaye daa dëng <laughs> woy wi neex na waaye daa dëng mu ni tekk ni ko mbakke lu ma waroon a wax mu ni ko dangaa war a wax maa gën ci yéen seen ndey maa gën ci yéen seen baay maa gën ci yéen ku ngeen mës a xam maa gën ci yéen lu ngeen mës a am ndax li ma mën ci nit ta koy def ci nit ku ko ndayam ndayam ak baayam manoon doo fi ñëw